voilà maa ngi leen nuyu man Alioune Badara jóg nekk ki nga xam ni mooy coordonné projet bi nga xam ne li ko tax a jóg mooy ñoŋal njàngum xale yi ci mbirum xayma nekk na projet bu nga xam ni ñi ngi ko door boobaak léegi mat na at comme liggéey nañu at dañu fi daje tey pour natt pour xool jéego yi ñu def yan jafe-jafe la ñu war a jànkonteel ngir jëm ci kanam projet bi nag li ko mooy fexe ba njàngum tuut tànk yi ñu jéem ko ñoŋal ci mbirum xayma wante kenn du sukkandiku rek ci jàngalekat yi ci biir daara yi dañu bëgg yëkkati jàngalekat yi yëkkati waa gox yi ndax lu jiitu projet bi am na ñaari projet yi nga xam ni doxal nañ ko ak suñu mbokku japonais yi bi ci jëkk moom la ñuy wax PAES maanaam projet bi nga xam ne moo jógoon ngir defar melokaanu école yi ci projet boobu waa gox yi jéem nañ leen organiser jéem nañ leen jox ay jumtukaay jéem nañ leen sax won lan la xaar jéem nañ leen sax wax lan la ñu xaar ci ñoom ci mbirum école ndax école léegi nekkatul mbirum jàngalekat yi kese même boo ñëwee ci benn gox <laughs> mën nga ni leen wax ma wax ma noo mel ma wax la sa daara mel ba tax na waajur yi dañuy xaar ci ñoom ñu gën a dugal seen loxo ci mbir njàng bi te waajur yu nekkul rek dañuy ñëw di joxe ay jumtukaay nekkul rek dañuy ñëw di joxe ay alal mais dañu war a dugal seen loxo ci doxum njàngale bi gox boo dem ci Sénégal <laughs> am na ay ndongo am nañu ñu xam ni ay waajur sax ñoom ñu dem ba retraité seen xam-xam may na leen ñu ñëw jàppale école ci projet bi dañu jéem waxtaan ak ñooñu jéem fexe jëriñoo seen doole jooju am na beneen projet bu fi jàlloon bu ñu wax PREMS bu nga xam ni jàngalekat yi la doon tàggat si mbirum xayma ci mbirum xarala maanaam ngir ñu gën a mën tàggat xale yi bii nag dafa lëkkale ñaari projet yooyu wante dafa teg ci digg bi ndongo daara yi maanaam dafa bëgg waajur yi ak jàngalekat yi joxante loxo ngir ñoŋal njàngum xale yi ci mbirum xayma ndax mu ngeen seetloo daara yi li ci am solo lu bare lu ñuy fàtte mooy waxtu yi ñuy jàng waxtu yi nag xëy na ci biir daara ji am na emploi du temps wante itam suñu génnee daara ji waajur bi mën na jàppale ndongo ji donc projet bi tëgg na ay jumtukaay ci mbirum xayma nga xam ni gox bu ñu dem dañuy xool ñi nga xam ni xëy na mën nañu jàppale xale yi ñu tàggat leen jox leen ko ànd ak ñoom gunge leen su boobaa dina yokk waxtu yi ndongo yi di jàng su boobaa it dina yokk mën-mënu jàng bi certifié euh, waaw xam nga bu ngeen seetloo filière scientifique balaa nga koy wax mën naa ni sax ci daar yi gën a suufee nga war a doore. mën naa wax sax ci case des tout-petits nga war a doore ndax nit ki am na noo koy tëggee am na noo koy tabaxe ngir mu mën a àgg ci loolu. ndax filière scientifique nekkul ni rek da ngay jël xale yi seddale leen ñu yam lim nga yaakaar ni jeex na mais kii dugg filière scientifique pour mu toog fa il faut moom am mën-mën il faut mu am xareñ mu xareñ te loolu nag danga koy waajal donc projet bi contribution la ci lool ñun dinañ ci bay suñu waar wante ñun rek du ñun ñoo fi nekk am na ñeneen ñu nga xam ne ñu ngi yëngu ci biir daara yi xëy na ñëpp bu ñu lëkkaloo seen loxo xëy na fii ay at mën na am loolu xëy na dina nekk suñu ginnaaw Oui. Euh, je m'appelle Nobuhiro Kunieda. Je conseiller principal en éducation de base au niveau de la JICA au siège du Japon. Également, euh, je chargé de ce projet euh, euh projet d'amélioration des apprentissages de mathématiques en l'élémentaire. Euh, je suis basé à Tokyo pour d'abord euh, appuyer euh, le, euh, la gestion du projet, mais également, je suis, comme je suis chargé de plusieurs projets en Afrique, dans le domaine de l'éducation de base, donc euh, des fois, euh, je viens ici comme ça euh, pour voir ce qui se passe sur le terrain. Et puis, s'il y, a des, il y a des éléments à améliorer, bon, on travaille ensemble. Et puis, j'ai aussi euh, plusieurs projets. bon, euh, par exemple, on organise euh, un atelier sous-régional pour partager des expériences des différents projets. Donc c'est comme ça, mon rôle est aussi de faciliter la mutualisation des expériences dans les différents projets. le coût euh, je n'ai pas <laughs> de chiffre exact, donc... Euh, par le travail qui a été abattu sur le terrain Oui, euh, par exemple, ici, nous sommes à la fin de la première année du PAM, qui a duré de 4 ans. Donc, bon... Pour moi, la première année du projet, c'est euh, euh, la phase de préparation même. Pour démarrer euh, les activités concrètement, euh, euh, les activités de terrain. Par exemple, nous, nous avons ciblé une vingtaine d'écoles comme euh, les écoles pilotes dans les régions de Kaurak et de Kakouin. Donc, pour la première année, Bon, nous avons euh, bien travaillé euh, pour euh, hériter les activités des, des, deux projets précédents, comme le PREMST et le PAES. Par exemple, nous avons euh, effectué la formation des enseignants pour la première année. et puis, nous avons aussi organisé des forums régionaux, départementaux plutôt, dans plusieurs départements, dans les deux régions pilotes. Et puis euh, nous avons aussi appuyé, euh, euh bon, par exemple, l'utilisation des livres de mathématiques au niveau des élèves euh, dans euh, les écoles pilotes. Bon, comme ça, euh, et puis nous avons aussi produit des, des outils d'appui à l'utilisation des manuels pour les enseignants, comme ça. Mais ce sont les éléments qu'on a voulu vraiment euh, euh préparer pour euh, les activités à partir de la deuxième année. Donc euh, moi, pour moi, c'est la phase de préparation est satisfaisante. ce qui nous reste est que ce n'est pas le projet de production des outils, non. Ce n'est pas de projet de renforcement des capacités des enseignants, non. Ce n'est pas de projet de renforcement des capacité des membres de la communauté, non. Mais c'est un projet pour vraiment améliorer l'apprentissage des élèves. Donc euh, il y a beaucoup de choses à faire à partir de la, de la deuxième année, mais je pense que nous sommes, euh, nous sommes tout à fait prêts pour aller dans la deuxième année.